sama njaboot gi may wax bul ñu fàtte ci ñaan nag li ma leen di wax mooy yal na leen yàlla indi fii ci fekkee tal nag ak bu jotee sans pression parce que ku fi war a ñëw bu jotee di nga ñëw ci noo ko yëgule day gaaw day neex yàlla leen ko yàlla defal li ma leen di wax daal mooy na ngeen gën a defaruwaat te xam ne li ñuy dund neex na ay jeunes lañu ay ndaw lañu yàlla may ñu àdduna may ñu jamono may ñu nu mën ko di ko euh, ko def waaye nañ bàyyi xel nañ bàyyi xel ne man nag damay nit koo xamante ni li ma jàppe sama bopp laa jàppe ñëpp te li ñëpp li ñu bari di wër man dama ko wóorul li li ko yitteelul ndax damay kun tënk kunu tënk ci peg gi démb tikki ma jamono ngir suba ci samay mbokk laa koy tàmbale li nu yaakaar nan ko gën a defar ndax mën na ci am lu faw seen gis-gis ak seen yaakaar ci man ndax damay ah, damay damay góor yàlla ci góor yàlla yi nag te dafa jot ñu xamee ko jàppe ma ni ndax demin bi gën a rafet ànd bi gën a neex te gën a dëggu di ñaanal sama bopp matal ko ba ëllëg dunul ci kanamu suñu boroom tey ñaan Sénégal yàlla wàcc fi jàmm ak tikki jàmm ñi ci tënku seytaane li fi nekk boo ko naroon a lijjanti werenteeg baax baaxaa lay doon bés bu yàlla sàkk déggu du am moom lay wax réeru am na ba noppi waaye nag yërmande yàlla amul lu mënul ndem góor yàlla yaa ngi ci dëkk bi nanu bàyyi sunu yittey jamono te tënku ci defar doomu aadama yi ci nu kenn yëgul dem bu benn waaye mi ngi naan ma nit buy defar nit du ko yëg du ko ko yëgal da koy defar ba mu nekk lu mu nekkul yóbbu ko fu mës mësta xalaat na dana fa nekk te du xam ko ko def te ki ci pegg moo ko def te du ko xamal ndax loolooy def te yàlla tax na góor yàlla yi dimbali doomu aadama yi bañ déglu ndax wax du jóg ci ñoom jëf bu ñaaw xalaat bu ñaaw du jóg ci ñoom ku yàlla dimbali nga xam ne ci góor yàlla yi nga bokk defal la li nit di defaree nit di dimbali nit te nit du ko yëg war nga mën a nekk nit te bañ a def yëfi ku dul nit te def te tax bii moom su ma ko waxee ba noppi damay damay tëj damay tëj damay dootuma wax sama umra bi dama am yéene defal ko sama yaay moom laa ko defal bari na nag lu nu wax ci ajal nit waaye bi ma imaam bi waxee yi nga war a def doog ko ko defal dama ne ko man moom laa ko defal mu ne ma kon yow nag ma ne ko man garawul noonu laa ko bëgge sama yaay fu mu bëggeelam ci moom bi ma am ci jëmm jooju sama njaboot gi may wax bul ñu fàtte ci ñaan nag li leen di wax mooy yal na yàlla indi fii ci fekkeek tal nag ak bu jotee sans pression parce que ku fi war a ñëw bu jotee di nga ñëw ci noo ko yëgule day gaaw day neex yàlla leen ko yàlla defal li ma leen di wax daal mooy na ngeen gën a defaruwaat te xam ne li ñuy dund neex na trop ay jeunes lañu ay ndaw lañu yàlla may ñu àdduna may ñu jamono may ñu nu mën ko di ko uh, ko def waaye nañ bàyyi xel nañ bàyyi xel ne man nag damay nit koo xamante ni li mu jàppe sama bopp laa jàppe ñëpp te li ñu bari di wër man dama ko wóorul li li ñu bari di wër man dama ko yitteelul ndax damay kun tënk kunu tënk ci peg gi démb tikki ma jamono ngir suba samay mbokk laa koy tàmbale li nu yaakaar nan ko gën a defar ndax mën nañ ci am lu fawxa seen gis-gis ak seen yaakaar ci man ndax damay ah, damay damay góor yàlla ci góor yàlla yi nag te dafa jot ñu xamee ko jàppe ma ni ndax demin bi gën a rafet ànd bi gën a neex te gën a dëggu di ñaanal sama bopp matal ko ba ëllëg dunul ci kanam suñu boroom tey ñaan senegal yàlla wàcc fi jàmm ak dikki jàmm ñi ci tënku seytaane li fi nekk boo ko naroon a lijjanti werenteeg baax baaxaa lay doon bés bu yàlla sàkk déggu du am moom lay wax réeru am na ba noppi waaye nag yërmande yàlla amul lu mënul ndéem góor yàlla yaa ngi ci dëkk bi nanu bàyyi sunu yittey jamono te tënku ci defar doomu aadama yi ci nu kenn yëgul dem ba benn waaye mi ngi naan ma nit buy defar nit du ko yëg du ko ko yëgal da koy defar ba mu nekk lu mu nekkul yóbbu ko fu mës mësta xalaat na dana fa nekk te du xam ko ko def te ki ci pegg moo ko def te du ko xamal ndax loolooy def te yàlla tax na góor yàlla yi dimbali doomu aadama yi bañ a déglu ndax wax du jóg ci ñoom jëf bu ñaaw xalaat bu ñaaw du jóg ci ñoom ku yàlla dimbali nga xam ne ci góor yàlla yi nga bokk defal la li nit di defari nit di dimbali nit te nit du ko yëg war nga mën a nekk nit te bañ a def yëfi ku dul nit te def te a tax bi moom su ma ko waxee ba noppi damay damay tëj damay tëj damay dootuma wax sama umra bi dama am yéene defal ko sama yaay moom laa ko defal bari na nag lu nu wax ci ajal nit waaye bi ma imaam bi waxee yi nga war a def doog ko ko defal dama ne ko man moom laa koy defal mu ne ma kon yow nag ma ko man garaawul noonu laa ko bëgge sama yaay fu mu bëggeelam ci moom ñu am ci jëmm jooju